ma directement man damay demander ñu réquisitionner avec mon ministre dañoo jël résultat yi teg ko ci loxo kii nga xamante ne moom mooy procureur de la république moom lañ jël résultat yi teg ko ci loxo moom moo à partir de la nañ xam xale bi lu tax mu wàcc liggéey résultat yooyu lu mu wane mooy xale bi lu tax mu wàcc liggéey mooy dafa amoon feebar boo xamante ne dafa nekk ci moom léegi lu tax mu wàcc liggéey mooy décompensation hépatique avec même jaunisse des yeux loolu moom moo yóbbu xale bi mais je persiste et je signe et je xale bi mësul lekkee restaurant universitaire te loolu nga xamante ne amoon na je termine là-dessus amoon na Bambey te ñu tuddee ko intoxication alimentaire te nga xam ne day am si yeneen université yi amul benn bakkan boo xamante ne rot na gannaaw loolu ba mu amee. Ah, alors dé dé dégg nañu la peut-être bu ñu dabee moom également dina dina ci indi li nga xam ne moom mooy xalaatam monsieur Diop nga nekk le médiateur de de l'UCAD mais situation yu mel ni médiation bi dafay yegg ci yenn université yi parce que bu ñu gisee ne Bambey depuis trois jours les forces de l'ordre ñu ngi ci biir université bi euh, dundoon nañu ko ay jamono université Cheikh Anta Diop de euh, ministère boobu ñuy wax est-ce que dina yomb bu ngeen bëggee def médiation euh, jamono joo xamante ne euh, ñaari côté yépp kenn ku ci nekk da nga mooy fenn ne doo bàyyi. waaw <coughs> loolu nga wax euh, xel man jàpp ne franchise universitaire at bu jot daanaka dinañ ci wax bu fekkente ni ay forces de l'ordre dañoo dugg ci campus pédagogique. Mm-hmm. et même campus social. dafa am nag lu bari loo xam ne nit ñi dañ ko réere mbir ci franchise universitaire franchise universitaire tekkiwul rek ni kenn du dugg université benn force de lord du dugg université ndax xam nga juristes yi ñooy wax ne nul ne doit ignorer la loi franchise universitaire leer na force de l'ordre du dugg ci biir campus universitaire tant que rectorat réquisitionné wu ko rectorat rek moo leen mën a dugal ci biir ñu ñëw def fi intervention bu fekkente ni rectorat jàpp na ni jéyee mën naa am te mën na ëpp ay loxoom bu loolu amee day woo conseil restreint conseil restreint ñooy toog waxtaan ci problème bi nga xam ne nii moo am su fekkente ni nii ci seen gis-gis dañoo war a woo force de l'ordre ñu woo force de l'ordre bu boobaa force de l'ordre am na droit dugg ci campus bi ci yeneen anam itam recteur bi bu fekkente ni gis na problème bu nga xam ne nii problème bu mën a indi jëye la bu dal ci université te mënul daal di woote conseil restreint ci anam yi mu ko bëggee ni mu gën a gaawee moom mën na jël décision boo force de l'ordre ñu dugg boobaa ba force de l'ordre kenn mun leen tey dugg waaye nag franchise universitaire méngawul rek wala signifié wul kenn du dugg université ku nga xam ne nii bokkoo ci étudiants yi wala nga bokk. mais mais dañ ciy gis ci ay franchise universitaire eh, est-ce que euh, euh, yegg nañu foo xamante ne takk der yi situation yi ni ñuy mel yenn saa yi est-ce que yegg na fu takk der yi war a mën a duggee ci biir université muy campus social comme campus bu Dakar sax bu Dakar sax yaakaar naa ni force de l'ordre yi dugg ñu ni ko nit ñi yaakaare wala ni ñu koy waxee. Dakar yéen ñëpp xam ngeen ko journaliste bu fekkente ne am na li ñuy tuddee front force de l'ordre yi ñu ngi ci avenue Cheikh Anta Diop. étudiants yi ñu ngi ci biir campus social. léeg-léeg nag ñu génn fàttaliku 2006 euh, amoon na dugg bu métti boo xam ne takk der duggoon nañu ko. amoon na amoon na waaye loola buñ ci duggee itam dañoo jotoon ordre pour dugg ci. force de l'ordre moom fu mu jotee ordre pour dugg ci campus bi mën na dugg ci campus bi bu ñu ko woowul nag amul droit dugg fi li nga xam ne moom la ñuy gis ci avenue Cheikh Anta mooy ay étudiants yu nga xam ne ni mën nañu génn sax ci campus bi dikk jàmmaarloo ak force de l'ordre yi ndax euh, am na ci aspect yu nga xam ne nii nit ñi xamuñu ko waaye policiers yooyu nga xam ne nii ñooy ñëw par exemple ci jour front dafa am ñu ci bari ñu nga xam dañu jaar ci étudiant jóge ci étudiant dem école de police. am na yenn yoo nga xam ni ay wax yu nga xam ne ni diggante étudiants yi la ak force de l'ordre yuy am yoo nga xam ni sax mën na xabtal nit ba peut-être mu def lu nga xam ne nii du méngoowul ak la mu bëggoon moom. waaye franchise universitaire bu ma ko bëggee résumer damay wax ne franchise universitaire mënul rekk signifier ni. campus yi dafay mel ni eh, une euh, représentation diplomatique bu kenn mënul dugg dafa am texte yoo nga xam ne nii mooy réglementer force de l'ordre ñu dugg ci campus bi su fekkente ni nii egg nañ ci anam yoo nga xam ne nii recteur bi ak son conseil restreint décidé nañu ni dañuy indi force de l'ordre force de l'ordre dinañ dugg gis nañ ko yow li nga wax am na yaa journaliste nga xam nga bu baax li li xew ci ci ci situation yi mais am na lu bari loo xam ne nii sax mën naa ko ci yokk madame Ndiaye mm-hmm. loo xam ne nit ñi dañ koy fàtte xam nga dañuy wax franchise universitaire et liberté académique mhm. liberté académique moom lañ ci yokk liberté académique dafa wane ni bu fekkente ni ni nekk nañ ci situation de grève kenn ku nekk dañuy wax li nga xam ne nii mooy sa warugar bu fekkee ni étudiant bi grève la amul droit dem dugg ci salle génne étudiant loolu itam liberté académique moo ko wax mhm. bu fekkente ni ni man jàngalekat la étudiant yi grève yoon daf ma teg nii bu fekkente ni ci classe bi am na ñetti étudiant te kenn ki nekk góor wala jigéen kenn rek bu ci nekkee de sexe opposé ku mu bokkul ak sexe ak ñeneen ñi enseignant bi war naa jàngale loolu aussi pan la yu nga xam ne nii nit ñi duñ ci bàyyi xel mais man ci sama gis-gisu bopp ak li nga xam ne moom la teg si wane def nañ ci séminaire yu bëree bari franchise universitaire tekkiwul rek ni benn force de l'ordre du dugg ci campus bi léegi nag li nga xam ne nii moo tax nit ñi xëy na ñu koy gisee ne neen force de l'ordre fu mu duggee jànkonte ak étudiants yi dañ naan force de l'ordre ñoom ñoo armé étudiants yi armé wu ñu te foofu jéyee mën na fa mm, loolu kenn ko ak li fi jot am yëpp ñu gis ko mm. est-ce que est-ce que jotul monsieur Sy peut-être mënul indi njàqare euh, euh, ci espace universitaire bi parce que bëri na ci ay cas euh, ñu ngi wax peut-être Bambey mais Bassirou Faye ba tey mi ngi ci xelu nit ñi ci loo xamante ne manifestation Ndiaye ñeneen ak ñeneen mën nañu leen ci lim euh, lan moo ci seen rôle aujourd'hui euh, vous êtes de la société civile ban liggéey ngeen ci defagum bi nga xam ne crise bi dox na ak léegi oui euh, merci ñun li nga wax rek problème université léegi peut-être cas cas Bambey bi moo fës mais ba léegi des na yeneen université yi bu ñu xoolee par exemple université université Bambey Euh, université de Saint-Louis mu ngi mu ngi mu ngi mu doon yëngu UCAD euh, euh, université aussi Assane Assane Seck de Ziguinchor. Mhm. ci université yëpp ñu ngi ñu ñu ngi seetlu ni temps yi am na ay ay yëngu-yëngu ñun nag suñu problème en tant que acteur de la société civile mooy dañuy gën a ñaaxaat ministère enseignement supérieur parce que moom moo yore politique enseignement supérieur ci ci dëkk bi bon moom moo koy développé. au niveau euh, du Sénégal donc ministère enseignement supérieur warul sax warul warul rek warul rek yem ci euh, ci médiateur wax wax nañu médiateur ICAT je pense que université Bambey amul médiateur. Mhm. Euh, amul médiateur à ce amul médiateur même bu amee médiateur waruñu rek yem ci médiateur dañu war a am ay comité dialogue social comme lu ñu añee comité dialogue social secteur éducation. war nañu am comité dialogue social secteur de l' enseignement supérieur. Mm-hmm. parce que ñun dañu foogoon ne bu ñu defee assise concertation nationale sur l' avenir de l' enseignement supérieur du ñu amaat où tous les acteurs sont réunis mu am ay recommandation fortes foogoon nañu problème a du amat université yi mais ñu ngi commencé waat gis euh, léegi problème bi mu ngi gën a am ci université yi diggante administration université yi ak. Euh, mm-hmm. administration université yi ak étudiants yi parce que bu njëkk ba. Euh, professeur médiateur sax xam na ci dara. Mhm. problème université bu doon am ay grève ay perturbation ci professeurs yi ñoo doon def grève mais léegi lu ñu seetlu li ci gën a am problème ci étudiants yi ak administration yenn université yi. Mhm. loolu moo tax nag dañuy gën a ñaaxaat dañuy gën a encore.